man de li ma la mën a assuré mooy Mbacke Kajoor ga ma dëkk moom barke Serigne Touba Mbacke lépp jàmm parce que liggéey nga wo fa lu fa waay xew la bu geesoo gis la muy xew bànneex muy xewu naqar lu mën a doon bu geesoo gis la ñun nag dañu ànd ak ku dul ku ñu yëg yow yaa ñu yëg yow la ñuy àndal xoolal am na ñu ñu gën a jege fop yow Mbacke Kajoor kër gu fa nekk bu la neexoon waaxu dugg fa doo laajte mais am na ñoo xam ne Mbacke Kajoor lañ juddoo yaroo fa buñ la waxut fii kër diw la kër diw la xamuñ ko boo xoolee mobilisation bi yëpp nga xam ne tey fii ñaar dërëm indiwu leen fi muy man muy sama morom li ma yëkkati moo yëkkati sama morom grand ñun dañoo am ngëm-ngëm nga ne suñu xol yi yàgg ñoo ji ngor ak teraanga xoolal toppewuñ la xaalis toppewuñ la dara grand yow boo gaaloon ay sareet sax di ci campagne ñu yëkki sareet bi ànd ak yow barki Serigne Touba ñun faalewuñu ay 4-4 4-4 bu la neexoon gaare ko ndax ay tappalee ko njuuj njaaj danga koy may mais yow doxoo ci loolu da nga barke Serigne Touba Mbacke bu la neexoon nga gaare ko ni ko say nawle gaare ndax ay trian tappale doo nga tax ñu ko te bu la neexoon nga dox ci mais doxoo loolu da ngay gore ànd ak sa ngoor xola ànd ak nga war a àndal ba yàlla jox ko te yàlla dala koy jox ndax liggéey nga ko barke Serigne Touba Mbacke kontaan nañ ci yow kontaan nañ ci yow te xolal yàlla dana la fay sa xol yàlla dana la fay sa xol te xolal da nga da nga dimbale population bi da leen da jàppale man de Abdou maa ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba képp koo xamante ni yaa ngi dégg suñu kàddu ak ñi ko déggul ñu jotali ko ñi ko déggul bu 23 janvier jotee ñu jël suñu électeur woteel Abdou Aziz Ndiaye mu jël Mbacke. lépp lañ bëgg ñu bëgg ñun ñëpp ñu bëgg ko ñun suñu mbooloo am nañ fanweeri nit ñoo xam ne ñun ak benn ñoo ko boot te ñëpp jox nañ ko Aziz ak ñeneen ñoo xam ne ñoo koy wër bëgg koo jox Aziz Ndiaye te sëñ Touba dina la ko Sine Mbacke sëñ Abdou lépp ngay am léppay baax ñi seen xol yi dañoo fees waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp leen nuy yéen presse bi di nuyu staff bi ñu àndal ak conseil yi ñu àndal yëpp tey li ñu dajale woon ak Mbacke population Mbacke bi mooy seet nan lañ demee ci élection yi ci campagne bi pré campagne lañ nekkoon pré campagne bi jeex na ndax wat gaal ak yëgoo boo àndee ki nit am loo leen séq di waxtaan nan ngeen ci doxalee ak nan ngeen ciy jóge aussitôt gars yi doon wax ay programme programme nous onaa a des projets phares moom lañ doon lancé tey projet phares yi suñu chargé directeur campagne muy François Sarr dana ko exposé dana ci gën a waxtaan danañ ci gën a doxale loolu moo ñu fi indi woon tey ndax yëf yi du yëfi Aziz yëfi ñëpp la yëfi ñëpp na dañ ko war a waxtaanee moo ñu fi indi woon li nit ñi def ne maire ab buur la maire du buur maire jaam la jaamu askan wi la comme man ñi nga xam ne samay patron ñoom ñoo xewle woon ñu lañ jiital ma ñëwoon doon waxtaan ak ñoom ñu diisoon ni nga xam ne moom lañ bëggee ma jiitee ko mbooloo ñu ànd dox ci loolu lañ nekkoon tënk ko ci lépp mi li nga xam ne moom la ñu bëgg population bi nan lañ yore Mbàkke ëllëg commune bi bu ñu ko jotee le 23 janvier dañ wax ne nii lañ koy doxalee ànd koog ñoom ñi nga xam ne ñoo ko seq ak waa dëkk bi waa Mbàkke commune bu Mbàkke moom lañ doon waxtaane tey sëñ Muntaxa Serigne Touba li mu wax leer na jaar na ko ci porte parole am sëñ Bass Abdou Khadir dafa leer daf na bëggul ay bëggul coow ne ñëpp àndandoo doon benn la paix man paix la woote ñun am mu ñoo kenn xaar ma yàlla parmi les treize candidats li Serigne Mountakha wax lañ wax ñun ñun duñ xuloo duñ ñaayoo suñuy militant ak suñuy militante xuloo wuñu non violent lañ def amuñu kenn ku ñuy xooloo xam luñ bëgg convaincre nit ñi ci sunu sunu sunu sunu sunu projet phare yi ñu dem voté ji gañ loolu lañ bëgg incha allah point barre c'est simple